waaw salaamaaleykum gars yi maa ngi jaar cappaatuli bi la maa ngi nuyu ñëpp gars yi di wax nag bis bu mag bi incha allah le 25 lay doon le 25 novembre stade Iba o face à face Tapha Tine Boy Niang allah ñu jox ñëpp rendez-vous gars yi foofu ah képp kuy cappaatuli foo nekk gaan ah Pikine lay déparé bis ah. bus yi kaar yi njaga njaay yi sereer yi mooy loolu vélo yi pétin yi yëppay dem gars yi ah incha ñu wax ñëpp ñu jox rendez-vous foofu cappaatuli yëpp yëpp yëpp yëpp bàyyiwuñ kenn yëpp tëlu mag di diis i ko taaf cité pépinière cité 1 2 3 waxi naan 1 2 3 bàyyiwuñ kenn mafia yëpp gars yi ah tëngeet barñi gars yi mafia bi bàyyiwuñ kenn ñëpp nañ ñëw ñu takk corona bi ah ci jàmm nag ak salaam non violence jàmm ak salaam gars yi ah ñu dem def ambiance ñu def neexal def fula ak fayda ak joma ah. bu jeexee rek dafay jeex ndaalaan bu dofe rek naa na koy faj waaw dafa leer ah! salaamaaleykum gars yi ñu ngi woo ñëpp le 25 novembre ah. Iba Mar Diop feesu fees Tafatine Boy Niang le vingt cinq novembre incha allah ñu ngi ci woo fan si yëpp di ci woo am di jàmm yi xam ñu teel a ñëw dix-huit heures ñëw fees stade bi xam nga Tafatine ñëw defati différence incha allah. di leen jaajëfal bu baax a baax yéen li ñu topp ci Leewtoo TV saa su ne comme ni ñu koy defee ngeen daal dem ci gox bu ne wala écurie bu ne dafa fekk champion ba fa ne daal di toog waxtaan ak moom ci lépp lu soxla làmb waaye lépp lu soxla carrière am tey nag dañu ñëwaat beneen écurie ginnaaw ba ñu jógee Lamsaar fi ñu ñëw nag ndaanaan yàgg na fee yeewoo ndaanaan yàgg na fee génn ndax bu ñu nee Sathiès doomu Double Less yàlla ko yàlla xaare aljana doo ko lam ci làmb dañoo ñëw na fekk fi beneen mbër beneen champion bu war a bëre le 19 décembre ñu nuyu ko bàyyi ko mu nuyu internet yi champion maa ngi lay nuyu ah, aujubilahi min cheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mm-hmm. mm-hmm. sant Seydina Mohamed mm-hmm. di sant sama sëriñ sëñ Fallou Rahman di sant waa Leewtoo TV bu baax di sant sama gaay yi ku mel ni Këcc Mbay Zos ak sama papa ñoom Volcan ñoom Boy Ballé ñoom Serigne Ngaw bàcc guy gi sama gaay yu baax yi ñoom Sàmmu Kaane ñoom ñëpp ñoom Sadio Mané Sa Thiès euh, Kër Mbay fa di sant waa Casamance bu baax di naan sama mbokk soose yi mbaa di man dingol mbaal kontoon mbaal la mbaal jeela mbaa falaale alnumbaara surtout waa SB waa Simani Birasou sama gox sama village fi ma juddoo fi ma yaroo di sant waa Géejuwaay bu baax waa Jaxaay waa Lamine Sarr waa amoo 4 amoo 406 sax waa jamono di sant ñëpp daal jaxaay kaw ba ci suuf di sant sam papa sam papa fan yi la wàññeeku amin te yàlla na suuf oyof ci koom bu baax yàlla na yeewu ajjana waaw di sant sama nijaay bu baax Pa Laurent Correa mm-hmm. di ko sant bu baax mm-hmm. ak waa kër Sëñ Fallou Rahman surtout mm-hmm. sama mag Amadou Bamba Feta Omar Ndiaye Fodé Dieng Moussa Ndiaye di leen sant bu baax a baax a baax di leen naan combat bi seen combat la surtout Ahmadou Bamba di sant sama mbokk yi nekk France tamit ku mel ni Lélé Bisali ñoom Alex ñoom Charlotte ñoom Marie ñoom Elisa ñoom Càngamaane ñoom Mayte Zoissin yi ñëpp lii seen combat la bàyyi nangoo papi waa jaxaay daal bàyyiwuma kenn waa géejuwaay mhm. surtout Sa Thiès ak Balla Gaye mhm. sama ñaar doom lay yooyu mhm. combat bi jox naa leen ko di woo sama patron ma ma jax yow xanaa ngaa tiit yow ñi nga woo nit ñi bu ñëwee mbaa mbër bi doo xool mu daanu du loolu sax damaa bëri ay mbokk rek bëri ñi mu bëgg bëri ñi ma sopp lool lool surtout combat bi da leen ñor rawatina man mii trois séances laay def par jour. xam nga ki ngay bëreel bu baax. xam naa ko bu baax moom moo xamul. Hmm? parce que man du ma nitu du ma nitu réseaux sociaux. Hmm. damay làkkatu di liggéey. Hmm. vingt six ans laa am. <laughs> mu jàpp na yow paa nga ne yow vingt six ans nga am xanaa kon moom bi moom tafaatir bi lañ koy abal. lii mooy nax gars yi. mais bisu làmb dina xam ni paa laawal paa. waaw. muy noonu nag dafa xaw a lekk sama lanti ba mu duggee Casamance damay delluwaat Casamance rek dem ndaw Ndawkunda ah dugg Sédhiou Julkunda famille Tambacounda di leen nuyu ñoom ñëpp fekk fa sama yaay mami ndaw ah doomu muskuta jéete dama koy nuyu te di ko ñaanal jàmm bu baax a baax yaay booy dooleel ñaan bi dooleel sangat na buree lu ñëw yëngala ba mu saf nga yónnee ma yaa ma gën a xam champion bu ñu bëggoon xam yow kan lan lan ngay wax internet yi nga xam ne xamuñu la bëgg xam yow kan. waaw man maay am six combats. am six combats bëri fi. man ñi ñoo ma yar ñi nekk sama ginnaaw bi. ñoo ma yar xam nañ ma bu baax. xam nañ ma li ma mën ak li ma mënut. bu dee entraînement mooy may ndam. ak fulla mooy may gëm naa ne mu ngi si man. te bis ba amateurs yi. dinañ xam kan mooy les juniors. yow dafa mel ni sa dafa xaw a tàng ci les 19 mais balaa ñu ñëw ci les 19 bi ma bëggoon delluwaat tuuti ci ginnaaw sa carrière lamb naka nga débuté. sama carrière làmb wax dëgg yàlla métti woon na trop. yàlla ak mbay jos. volcan. père Bada mi fi nekkut. ñoom seriñ Ndaw tampon ak papam dama daan ñëw fii école fii. ñu ne ma da ngay nekk champion. ñoom booloo ñu ne ma da ngay nekk champion boo gëmee sa bopp. ma ñëw fi chaque jour volcan ni ma ne da ngay dem salle musculation. mu métti lool lool lool sax. xam nga mbër mu ndaw des fois da ngay ñëw entraînement doo am looy reere doo am looy ndikkee métti yoon na trop sax si man may jugee géej waay chaque jour des fois damay am paas des fois du am paas dama koy dox te man bugguma amal kenn ak des fois oto yi dañ may rom ma ne xaaral ma lànk te nit mën na la cee mere ak boobu topp la mais du ma lànk damay dox dem gëm yàlla xam ni bis dina ñëw dinaa tey làmb loolu ma gëm la ñu nekk ci kanam nii ay ñoom booy ñaa ñoom Tapha mm-hmm. xëy na bu ma leen tuddee ñu naan booy bi lii ak lii mm-hmm. mais ñoom ñëpp sama loxo la ñim te dinaa leen daan bu soobee te loolu lu ma gëm la mm-hmm. ci sama vision la bokk dañu naan gëm-gëm de dara gënu ko foor suuf si boo ko téye am loo ci yaakaar sa gëm ko suuf suuf loolu lay doon ci loolu nga jaar mu metti lool est-ce que mosoo toog bis rek nga rëccu li nga nekkee mbër wala li nga duggee ci làmb waaw man bi may soog a ñëw fii nag premier mois bi. entraînement météo na lool tuuti ma ñibbi Casamance. Hmm? SB tuuti ma ñibbi si mani biraasu xam moom mooy SB gars yi fee Casamance moom la ñuy ne SB si mani biraasu. Hmm. bu ma amoon paas rek dix mille franc jamono jooju damay dellu. Hmm. parce que ñëw naa fi ay ñoom bay sos. di bëri loo xamante ni daf maa yéem. moom mu ngi nii du ma bàyyi ma fet des fois daf may daan jël boo xam ma ne mbay nii noo ko defee. xolam bu sedd. te mu baax. mu ne ma lii nii nga koy defee nii nga koy defee mm. ku baax lool ku gore lool mm. mbay jos mm. jàngal na ma lu ne ci làmb sama combat bu mujj bi jour combat Modou Lo Eumeu Sène mm-hmm. jour boobu yàlla xam na ni bu dul woon moom damay daanu kottun bëre ajuma juuf mm-hmm. ajuma juuf laa doon bëre bu Kaolack mm-hmm. des fois dama koy sori mu ne ma jege ko mbëru mbapat li jege ko damay jàpp mu ne bul def action damay taxaw di ko diglu ci biir bëri ma taxoo di ko déglu kooku xam nga kooku bu la bëggut du la def du def loolu mm-hmm. nit bu la bëgg mooy taxaw ngay def dara mu ne la defal lii bul def mm-hmm. yàlla may ma ci ndam mm-hmm. mais lu ma gën a neex si moom nag jour boobu dafa taxaw mu ne daan nga mais indiwoo entraînement dalaa wax dëgg dalaa yey man damaa bëgg nit bu may wax dëgg man boo may wax dëgg dama lay bëgg dama lay naw damaa daan mu téema mu ne ma dangaa daan mais indiwoo entraînement neexuma mu ngi nii duma bàyyi ma fen mhm. ma taxa ay rangoñ di ma xam ni kii lu ma wax dëgg la mhm. parce que man mii sax xam naa ni premier round bi de première deux minutes yi damaa jeexal mhm. mais yàlla ak moom mais lan moo waroon nga dem làmb di bëre indi woo entraînement dangaa jëloon lépp wéer ko ci mystique bi wala pare woon non boobu dama wéeroon lépp ci musculation dem salle dem june pour man loolu mooy làmb mais yàlla ak moom moom moo tax ma xam lan mooy làmb mm-hmm. mu ne ma contact mooy làmb mën mm-hmm. nga dem yëkkati weñ sax form bi rafet mais boo amul contact doo dem te dëgg la mm-hmm. dëgg la moo tax man combat bi fils de Badlen City boo yaakaar ni paa ngay bëreel wuy ma eh eh eh defal naa nga yow teel du ma kii yow bi kii dafa yaram dafa teel a tàng teel a dis na def naa ngi topp. c'est que du du loolu de man combat moo la gën a marqué sa combat yëpp. sama combat bu mu gën a marqué sama combat yi défaite wala victoire. bu la ci gën a marqué global ba pare ñu soog a ñëw bi wala victoire bi. ma ci gën a marqué. muy sama combat ak waa ji nu mu tuddee ku ma dàmmoon loxo yi. fils de Balla am nga problème kaa ñu waxtaan. ku ma dammoon loxo bi nu mu tudd Mbaye. Mafal Seye. Mafal Seye junior. Hmm. waaw presque damm naa ñaar personne de daa mel ni. ñaar ñett <laughs> est-ce que loo jox nga tegal ma ko ci. dammaatal ma ko. bàyyi nga damm. non bàyyi ma. <laughs> c'est parce que du loolu fils de Badlen. Hmm. fan yii gis naa ko muy wër réseaux sociaux. waaw bëgg tontu ma balaa ngay tontu fils de ba pare. waaw tontu ma. combat bi mhm. la moo tax combat boobu marqué la. combat boobu parce que boobu noonu. Mhm. ñi ma yaakaar dañoo bëri. te damaa génn sama buntu kër siggi xool ma xool samay nawle xool samay rakk. Mhm. xool samay mbokk. Mhm. nu ñu sonn surtout sama mag bi Amadou Bamba. komba mhm. bi des na quatre jours nelawul. quatre jours yi jugee na Gambie dem Casamance dem Pakaaw. doog a ñëw Dakar. bu ma fàttewul ak fetta mu ne ma booy maa ngi nii quatre jours nelaw ma ndax yow. lu ne digg naa ko. ma ne ko mag jàmbur làmb ji su ma ko gañewut damay tekki sama ngemb mhm. te làmb ji dama koy gañe seentu li nekk sama kanam. léegi bi nga daane lan nga yëg lu ma yëg mooy moom laa njëkk xalaat. Mhm. ak sama këcc. yëg sama këcc. Mhm. Mbaye Jos ak Père Bada. ak mag école ñoo laa njëkk xalaat. léegi yow sa premier sa sa victoire ban victoire moo la gën a neex sa victoire yi waxuma ay damaata de damaata. victoire bu ma gën a neex boo xamante ni dama ciy bëre.

bëri doole ak xel la. waaw. ban defet moo la gën a metti. Euh, man ak Ablaye Diop. lu tax. parce que combat bi damaa yaakamti lool. Mm-hmm. Mm-hmm. dama ko bëgg woon nii man. Mm-hmm. man maa la mën ëpp la doole. ma ñëw ak xadar ak yaakamti songu ko songu boo xam baaxul. mu sol ëñ takk mu caxawal ma. ci noonu. dañuy naan mbër defet moo koy defar yow ba nga jóge ci defet boobu lan la la jàngal ci làmb. defet boobu jàngal na ma lu bari ci làmb. lu bëri bari bari bëri sax. Mm-hmm. parce que tëdd naa ba xaaju guddi ma ne man jot na man. Mm-hmm. parce que gis naa ñi ñi ñi ci jooy. Mm-hmm. gis naa ñi ci xëm samay mag. ma ne lii bu daggul bu ma bàyyil sama yëf xale yu may def. dinaa rey nit. internet yi Less Junior la yëfu mag nga dafa jot fu mu nekk nii le 19 décembre sa digganteeg fils de Badlen. mu jógee ci compétition drapeau du chef de l'État jël fa troisième. Mhm. jàpp na fu mu ne nii lay xool ak jour combat ba yow nga daanu. pour man premier jël sax. troisième la jël troisième la jël. jàpp na fu mu ne nii doole gi mu yor ak li muy entraîné bu la xoolee yow doo taxaw jour combat ba. Mhm. drapeau chef de l'État ñun gis nañ ñi nekk équipe nationale yàggul rek ñu daan ko. Mhm. arène ak équipe nationale bokkut bëri dóor lañu wax xeex ak bëri mhm. te fils de Batlen bëri bu ñuy wax ci moom su ko neexee mhm. dix minute ñu contact man ak moom sans dóor su paree dix minutes yi su jeexee mhm. ñu xeex ñu xool ku dàq bëri ku dàq xeex xam nga damay wax internet yi naa ma Ndeye Mbacke yaa ngi bool ci bokkul waaye fils de Batlen moo ko wax ci moom laa jógee léegi mu ne ma waaj bu taxawee mu duma ko su ma songee ma daan ko ndax lépp lu muy woote da de daf ma ko fekk si man ndax yow paa nga jàpp na ne fu ne nii yaa ko féetee mag loo koy wax. waaw dëgg la na jàpp ni man paa mu ne man su ma xeexee mu duma ma. doo bëree mu daan xëy na bi sax su ma ne fils de Badlen Cité su ma ne fils de Badlen Cité. lak si yu song la yor. Hmm, kon xam nga ko te man loolu daanu ma bu yeboo loolu na na na na na dem tëdd ne la. da nga koy jàng di ko suivre wala la. non man si lijjantiwu moo ko sax mais xam lan moo gën a métti si àdduna nit xam la te xamoo ko. Mhm. man dama koo xam te xamuma. <laughs> mbëri daal sa ba dama moom ne man day mbàkk kii dama ko xam bu baax ndax moom mu ngi toog ci réseaux sociaux di wax <laughs> man damay liggéey ma ñëw ci yow nga ne moom day toog ci réseaux sociaux yi di wax yow da ngay liggéey. léegi da nga may déglu man laa wax kanam gi da nga ko mës a gis ci réseaux sociaux. Ah, ak internet waa Lutte TV ñu ne woo nañ ma. Mhm. sama papa père Babou moo tax sama jël leen parce que man du ma nit en man professionnel la. Mhm. je suis pas je quelqu'un qui est voilà quelqu'un qui est bizarre wala quelqu'un qui est <laughs> normal xam nga la man sama carrière je suis jeune mhm. professionnel. je suis jeune professionnel. je suis pas comme des lutteurs. parce que xam nga la booy feeñ chaque jour ci internet nit mën na liggéey sa doole. Hmm? mën na xam lii nga li ngay liggéey bu jour combat lii lay indi moo tax man dama bëgg a fës ci ay. moo tax ngeen moo tax may nëbbatu dama lay dama leen di laaj yéen ñëpp ñi fi nekk ndax mës ngeen gi sama kanam gi si internet mu toog nii di wax c'est la première fois. Hmm. bu dul woon père Babou man du wax. Hmm. parce que moom moo ma woo mu ne ma dañuy ñëw jël si la parce que dañoo jël fils de Batlem. mais man du ma nit internet man xam lan laa xam. bisu làmb ma tàkk ngemb mhm. génn sama buntu kër mhm. xool samay mbokk mhm. dem ci làmb ji albitre wàccee loxo bi boobaa dinañ xam ku am fullaa ku ñàkk fayda yow na nga jàppoon fi sa beneen day wër di wax rek fu mu nekk nii moom moom moom la considéré mais man maa ngi sama rokk di liggéey ak samay këcc ak samay mag ak samay pap ci école bi di liggéey bu baax a baax a baax a baax ci liggéey boobu la ñëw instant bi combat bi jege si na mën nañu sa weer moo ci des ñaata man ba léegi maa ngi ci trois séances. Mhm. trois séances laay def parce que combat bi daf ma jaral. Mhm. combat boo xamante ni da lay yóbbu grand combat. Mhm. mën nga bëre koo xamante yaa ngi pesé cent vingt kilos. amatoo amatoo droit di bëri ay quatre vingt dix kilos. fils de Badlen. combat boo ko caaxaanee man les juniors caaxaane moo hmm? te bu soobee yàlla bu neexee Sëñ Fallou Rahman. billaahi dinaa la daan ba Sénégal ñëpp jéppi ma. waaw mbaa doo ko damm rek. Ah, daal moom mooy xool lu koy arrangé. bu dalee. ma daan ko jël bu sedd. bu rambaxee bu nekkee fii nag di wax. dinaa ko daan jël boo xamante ni ay sët sëtaatam sax dinañ toog dinaa suñu maam lii lañ ko def. <coughs> man man sax xaw naa tiit ndax ci damm yeeg yooyu. <coughs> tegal ma ci bu Modou Mané Alioune Seye euh, mënu maa jëw mën a Alioune Seye les juniors mhm. instant bi ñu ngi jëm ci face mhm. ñu ne loolu mooy nekk avant gu combat bi naka nga koy waajal yaa say supporters. yi di wax comme rek comme dab. Mhm. comme man instant bi nii amuma leen lu dul waa Casamance ak Géejawaay waay Kër Massar. li ko dalee parcelle. Géejawaay Géejawaay nag xaw naa bëri ay soppe. boo demee Gunaas mun taxaa mun taxaa ngi fa. ak jimboori président. nga dem jamono. Euh, waa jamono dë mm. nga dem jaxaay sama gox jaxaay kaw ak jaxaay suuf mm. waa asiko bu ñu ñëwee stade yaakaar moo sax booy ñaan sax supporter am bu ñu yéexee ñëw sax duñu am place ci loolu lañ jëm affiche bu mag grand combat bi diggante Boy Niang ak Tapha ndax nga gisee affiche boobu en tant que mbër boobu de soxna si dama yàlla jégal mais boobu noonu bëgguma ci wax parce que samay adversaire la xam nga lan laa bëgg dama bëgg ma merci may leen koy loxo waaye dama bëgg mbër ba mu fit. yee. xam nga man su ma la waxee sama adversaire bis combat Modou Lo ak Eumeu mhm. damaa toog ma ne sama adversaire li jëntiwu ma la man entraîné wu ma pour yow Modou Lo ak Eumeu Sène laay entraîné. au niveau bi nga bëgg a dem. te dama fay yegg te ñoom ñëpp dinaa bëri ñoom incha allah bu neexee sëñ Fallou. Olof Ndiaye dafa ne ndox du jéggi pax. fu nekk nii da nga am combat sa diggante Fils ak Balla mënoo ko ko romb di fekk ñoom Modou Lo wala ñoom Boy Niang wala ñoom Tapha Tine Fils ak Balla ngay jéem a ba pare soo ko yëg ci beneen level yow Fils ak Balla wax naa moom léegi nii nee na ma demee ak jour boobu damay ragal Boy Niang ak Tapha Tine seen supporter duñu duñu duñu duñu duñu xëcc ci stade bi léegi wàllu mobilisation bi ngeen di ñëw ba arène nationale biir Pikine di fekk si Boy Niang naka nga koy waajale <laughs> di wax sama supporter yi rek waa Lamine Sarr ak waa Jaxaay ñu teel a génn mhm. man incha allah dix heures dina ma fekk esat mm-hmm. lu ñuy gis mu métti ñëpp jaaxal ñëpp daje bu amee violence day am nit ñuy di sànnante ay xeer di toj di yàq loolu nekk lu ñaaw yow en tant que lutteur porteur de devoir lan ngay ñaax say supporter ak supporter yu mbër yëpp di fay ñëw. chaque jour ma wokk mm-hmm. chaque jour am na ay affaires yoo xamante ni. Mm-hmm. ñun ay doomi aadama lañ. te man sama gox boo fa yëgee. sama supporter lan laa leen njëkk wax. sol leen dàll yi rafet. tubéy bu rafet yëre bu rafet. ngeen jënd seen Presea ni Presea bi di neexee ngeen ñibbisi noonu ak victoire. bu leen gaañ kenn bul jël bu leen jël yëfu jàmbur. bu leen bu leen déranger kenn. man lu mu ñor mooy sama diggante ak sama adversaire. yéen ci kaw ngeen di nekk. bu leen kenn tilimal. bu leen kenn déranger tamit mais bu leen déranger kenn. dox leen ndànk ak asiko yi. ngeen fekke ma stade wala man ma fekke leen stade bu dee làmb la amateur yi dinañ gis làmb dëgg wax ma sax tafaatin booy ñaaw sax ñooñu sax li ma leen li ma leen làmb mën ak fils de bat leen dina mbapat dina xeex nga ne lan temps bi daf ñoo xaw xoj instant bi balaa ngay tëj la ngay wax sa advice dama nga xool sama caméra nga tontul ma de bat leen en live direct dañ la zoom gros plan lañ del waxal. xool ko. fils de Batlem man daal lu ma lay tegal jaas yaa ngi nii semmiñ yaa ngi nii dangay ngay tànn booy jël. ñoom ñaar bu tane. na dina xool bu tane rek. <laughs> jaas yi ak semiñ na xool rek bu gën a baax rek mu jël. xam ni man sama diggante ak moom. Mhm. du ma fa indi jàmm. Mhm. te bu la mayee jàmm doo jël. incha allah bu ñiixee sëñ Fallou Rahman. du ma indi jàmm parce que boo demee boo si boo leen si signé boo leen signé contrat boo leen demee bu teg affaire affaire man man ak moom instant yi nii bu làmb jeexee ñu soog a nekk ay xarit mais jamono ji jàmm jeex na. jàmm jeex na ba tax na temps bi ñu ma daf ñoo xaw a xoj euh, les juniors lan ngay tàggatoo lan ngay waxoon si. waaw fan si comme ni ma waxoon rek comme dab rek géejawaay géejawaay ñoom ñëpp nañ ñëw. ku mel ni Muntaxa waa mafia am Gunaas nañ ñëw mm-hmm. Mama Dia waa Lamine Sarr ñëw jaxaay kaw bu ci suuf mm-hmm. waa calaw calaw waa asiko waa pet petal mm-hmm. nañ ñëw sama dawalkat sareet yi marché njaareem nañ ñëw bu baax xam ni lii seen combat la ku mel ni waa station Touré sama mag Philippe tamit waa marché mam jaara Ousmane si mhm. waa Cité Aziz ñoom ñëpp nañ ñëw ku mel ni Aziz Ndiaye Baye Ndiaye <laughs> Soro ñoom samay xarit lañ nag. gis naa lépp dama laa bàyyi ci benn bi tàggatoo woon tëj émission ba beneen yoon. <laughs> dina baax mu ngi noonu ah lees lees du ñëw woon di ko bégee bu baax a baax. gis nañ li fi def sànq li moom bu ñu ko yónnee fii sa bëri doo gaaw ñëw suñu ko takk ma ñaareel nag na gaaw de. boo tegee jaase bu ko damm noonu laay def daal di bég ci yéen bu baax a baax internet yi jox leen dig daje beneen yoon ci beneen champion beneen daanaan ak beneen waxtaanu làmb jaajëf waaw salaamaaleykum gars yi maa ngi jaar capacoli bi la maa ngi nuyu ñëpp gars yi di wax nag bis bu mag bi incha allah le 25 lay doon le 25 novembre stade Iba Mar face à face Tapha Tine Boy Niang incha allah ñu ngi jox ñëpp rendez-vous gars yi foofu ah képp kuy capacoli foo nekk gaan ah Pikine bus yi kaar yi njaganjaay yi sereel yi mooy loolu vélo yi pétin yi yëppay dem gaay ah incha wax ñëpp ñu jox rendez-vous foofu cappaaculu yëpp yëpp yëpp yëpp baawuñ kenn Pikine gi yëpp tali bu bees tali bu mag lii di si ko taaf cité pépinière cité 1 2 3 waxi naan 1 2 3 bàyyiwuñ kenn mafia yëpp gars yi ah tëngeet barñi gars yi mafia bi bàyyiwuñ kenn ñëpp nañ ñëw ñu takk corona bi ah ci jàmm nag ak salaam non violence jàmm ak salaam gars yi ah ñu dem def ambiance def neexal def fula ak ak joma ah. bu dafay jeex ndaalaan bu dofee rek naa na koy faj waaw dafa leer. Ah! salaamaaleykum gars yi ñu ngi woo ñëpp le vingt cinq novembre ah Iba Mar feesu fees tafaatin Boy Niang le cinq novembre incha allah ñu ngi ci woo fan si yëpp di ci woo am di jàmm yi xam nga ñu teel a ñëw dix ñëw fees stade bi xam nga Tafatine ñëw defati différence incha allah.